ziyaare bu baax sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa mu ngi delloo nuyoo bi ak ziyaare bi bu baax di am mbégte bu baax a baax a baax nee na bu baax a baax a baax ci taxawaayu sëñ Ousmane ci taxawaayu sëriñ Ousmane ak sëñ Moustapha mi ñoom ñi nga xam ne. ñoom ñi nga xam ne. ñoo indi bokki taalibe yu baax yii. ñoo indi bokki taalibe yu baax yii. am nañ ci mbégte mu rëy a am na ci mbégte mu rëy a rëy. dolli ko nañ ci yaakaar ju rëy. nee na dolli ko na ci yaakaar ju rëy. Serigne Touba tawféexi boromam rek la. nee na Serigne Touba tawféexi boromam rek la. war a gën a sant yàlla ci suñu borom mi nu booleeg moom. bokk ci dugg ci tawféex jooju. nu war a gën a sant yàlla ci sunu borom mi nu booleeg moom nu dugg ci tawféex jooju. tawféex jooju nag moo indi lii. nee na tawféex jooju nag moo indi lii. mbooloom taale bi moo xam ne seen xel dañ ko seen seen lépp dañ ko jëme ci Sëriñ Tuubaa. mbooloom taalibe bi moo xam ne seen xel seen lépp dañ ko jëme ci sëriñ Touba. di boroomi xam-xam. tey boroomi xam-xam. loolu tawfeexi sëriñ bi rek moo ko mën a andi. nee na loolu sëriñ bi rek moo ko mën a andi. moo tax mu feeñale ko nii. moo tax mu feeñale ko nii. ñoo xam ne njabootu sëriñ Touba lañu. ñoo xam ne njabootu sëriñ Touba lañu. am yitte ju toll ne ji am. am yitte ju ne ji ngeen am. bëgg rekk loo xam ne eh, eh, dana dana dolli ko ci Touba. bëgg rek loo xam ne dana dolli ko ci Touba. te dëgg la xéewal yi mu fii seen Touba ren waaye ndox nag moo ci jiitu. dëgg la xéewal yi ñu fi séenu bari na waaye ndox da cee jiitu. ndax Serigne Touba fag faggu na lépp. ndax Serigne Touba faggu na lépp. kon yéen li ngeen war a njëkk a def mooy sant Serigne Touba. kon yéen li ngeen war a njëkk a def mooy sant Serigne Touba. tawfeex jooju nga xam ne ci ngeen bokk. ci tawfeex jooju nga xam ne ci ngeen bokk. kon bu ngeen jógee ànd ak yitte jure ju toll ne ji ngeen amee. kon bu ngeen jógee ànd ak yitte jure ju toll ne ji ngeen amee. loolu alhamdulilah rabil aalamiina day gën a dalal sunu xel rek. loolu alhamdulilah rabil aalamiina day gën a dalal sunu xel rek. ndax ni ma ko waxee léegi sëriñ bi fàggu na lépp. ndax nee na ni mu ko waxee léegi rek sëriñ bi fàggu lépp. lu mat a fàggu rek lu mat a rek sëriñ bi fàggu na ko. te jubóo na ci ak boromam. te jubóo kon yéen da ngeen am tawfeex sëriñ Touba rek. kon yéen da ngeen am tawfeex sëriñ Touba rek. ñoo leen di sant ci yitte jure jooju. nee mi ngi leen di sant ci yitte ju rëy jooju. taxawaay bu rafet boobu. taxawaay bu rafet boobu. jóge ci yéene ju rafet a rafet. jóge ci yéene a rafet a rafet. Pastef bu bu bu sell sell bu wér a wér ak Pastef bu sell sell bu wér a moom bu xasee aju ci rek. ndax xol moom bu xasee aju ci Sëriñ Tuubaa. ba sell na wér na. Pastef ba na wér na. kon nag ngeen jëf. nee na kon jërë ngeen jëf. ñoo ngi leen bu baax a baax. nee na mi ngi leen di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax. kon nag dégg yi. nee na dégg na leeral yi. ci wàllu gëstu gi. ci wàllu gëstu gi. xam am ndox jiitu ci. te ndox jiitu ci. loolu loolu day lu nu lu nu lu nu loolu day lu nu aajowoo aajowoo aajowoo. ndax ndox dafa dafa nekk moom mooy lépp. ndax ndox moom mooy lépp. kon nag sunu aajo su aajo yi bari na te rafet na njort ci ne aajo yooyu yëpp dana faju kon nag sunu ajo yi bari na yaatu na. waaye rafet nañ njortu ci nag yëpp day faju waaye ndox nag moo ci jiitu waaye ndox nag dajaa jiitu mooy mooy aajo ji tee ji taxaw tem mu fi mu nekk nii ndox nag mooy aajo ji taxaw tem mu fi mu nekk nii kon ñëpp ni ngeen ko defee rek war nañoo jëme suñuy xalaat ci noonu ndox di amee Tuuba ba doy sëkk nee na kon ñun ñëpp sell di ndox mu sell ni ngeen ko defee ñun ñëpp war nañoo jëme suñuy xalaat ci ndox di amee Touba doy te sell. suñu yitte suñu yitte ñu jëmee ko ci ndox di amee Touba di sell. ndox na na ndox na Touba mën a amee ndox mu ndox mu doy mu sell. na Touba mën a amee ndox mu doy mu sell. loolu ñun suñ suñu yëpp suñu yitte jëpp ñun ñii. nee na ñun ñii. rawatina yéen rawatina yéen ñii. rawatina yéen ko war a jëmee rek ci ndox. dañ ko war a jëmee rek ci ndox. na mu gën a gaawe na mu gën a gaawee. waaw noonu rek la demee. nee noonu rek la demee. mbënd maa ngi fi. mbënd maa ngi fi moom dëgg yàlla lu lu lu doy waar la ndax lu rafet ci njort. moom wax dëgg yàlla lu doy waar la. ak lu métti métti métti métti métti. mënuñu rafet ci njort rek. lu métti métti métti. ndax bu xewee fii fii sëriñ bi. ndax bu xewee fii fii sëriñ bi. loolu dama dafa mel ne xëy dafa bëgg indi ndox mu. ndox mu ndox mu bare bare bare bare mu sell. loolu xëy na dafa bëgg indi ndox mu bare bare bare mu sell. moo tax natt boobu jiitu. moo tax natt boobu jiitu. noonu rek la ko mën a nee nee noonu rek la ko mën a gisee. ngeen ko mën kon jërë ngeen jëf. yitte jàngoo ko. kon daal yitte jàngi noonu. ñun ñëpp daal dañ ci jëmee suñuy xalaat. ñun ñëpp dañ ci suñuy xalaat. ñun daal di gën a mën a amee. ñun daal di gën a mën a amee. Euh, liggéey bi liggéey Sëñ Tuubaa dafa rëy lool. liggéeyub Serigne Touba dafa rëy lool. ndax yàlla rek la yàlla rek yàlla rek la doon liggéeyal. ndax yàlla rek la doon liggéeyal. moom liggéey ci yitte moom la nu fi bàyyil. te yitte jooju la nu bàyyil. moom la nu fi bàyyil. moom la nu bàyyil. liggéeyal yàlla dong moo nu fi moo nu a bàyyi. liggéeyal yàlla dong moo nu fi mën a bàyyi. kon nag. kon nag. yitte jàngoo ko. yitte jàngoo ko man nag lay sama yitte dëgg-dëgg. nee moom nag li yitteem dëgg-dëgg. sama bànneex. bànneexam mu gënal ma mu tam gënal ko moo di ñu indi ndoxum Lac de ba ci Touba rek moo di ñu indi ndoxum Lac de la nekk jëwri ñoom dafa nekk di Ousmane Anne ñaari dem ba mu ne faaw mu dellu ndax liggéey ba mhm. boo mu gisee géej yëpp dellu doganteeg doganteeg doganteeg doganteeg doganteeg doganteeg jàngu bu rëy bii doganteeg jàngu bu rëy bii nga xam ne fi la ko sëriñ bi bàyyi nga xam ne fi la ko sëriñ bi bàyyi mu xam ne moom bu buñ ko ko defuloon itam defal nañ ko ko ba noppi. moo xam ne bu buñ ko ko deful loolu itam defal nañ ko. yàlla nee na suñu borom defal na ko ko. nee na suñu borom defal na ko ko ci barke bi yonent bi. ci barke bi yonent loolu moom loolu yitte jooju nag. nee na yitte jooju nag dafa jàmp lool. dafa jàmp lool moo tax bi ma jógee rek. moo tax bi mu jógee mu daal dal ci kawam. mu njëkkee dal dal ci kawam bu dul loolu. nee na bu dul woon jànkuwaay laajte rek lay songu. laajte guerre rek lay songu. kon yoon waa noonu.